modi bobo euh, boobu di nga xam modi rabat d'arrêt ndax dañoo bëgg jouer si li nga xam waxtu wi euh, parce que japp ni itam suñ ko déposé yéeg ak wacc boobu ba tey day daal jël li nga temps et que euh, ki nga xam que Ousmane Sonko amatul temps bi nga xamni ne itam da ko daal di à mëna perdre nir mu daal di bokk si présidentielle atub 2024 si ñoom itam ñu daal di une ni suñ sukkandiku ci juriste nak fa nga xam ne itam mooy zann ko mu daal di ni c'est le principe de l'impartialité selon lui les juges sont toujours en nombre impair euh, enfin qu'il y ait une euh, majorité en cas de vote Manu euh, le fait que bien juge daal di gedd malgré cela ñu daal di amal boobu li nga xam nekk moo di atte et si atte bi nag euh, li nga xam nekk moo di nombre bi dafa doon dafa war doon nombre impair au am li xam nekk mooy wàllu ko vote loolu nag respecté wuñu ko euh, jëmale si ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko euh, éclaircissement yooyu la si daal di indi ni allant dans ce sens moom ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko nag loolu su ko neexee mu daal di koy yóbbu si yoon ak wallu ki yoonal am li na xam nekk moo di rabadare ndaxte jàpp na ni li nga xam nekk moo di kenn waru se wàññeeku malgré cela la juge Aïssatouba Touba Mouradi euh, boudé la salle alors cette violation de la loi estime un autre membre de la défense de Sonko euh, constitue un vice de forme nak, ken, dafa daal di ces avocats Ousmane Sonko jàpp ne ni itam la nga xam ni itam euh, euh, malgré ak boobu de désistement boobu de jugement malgré ça daal di koy atti dafa nekk leen loo xam ni itam dafay daal di li nga xam ne rek euh, moo di bokk ni Ousmane Sonko da koy daal di jaay selon cette source l'introduction du rabat d'arrêt broquerait le renvoi du dossier devant le tribunal d'instance de Dakar ma ni kon nag saa su li nga xam nekk moo rabat d'arrêt amee dossier bi mu ne ko daal di bloqué fa nga xam itam mooy daanaka tribunal et que loolu daal di arrangé benn ki nga xam que moo Ousmane Sonko euh, pour daal jouer li nga xam que moo avec le temps ñom xalat ñoo daal di daanu si piège bi nga xam itam état bu Sénégal mo leen ko daal lalal bo leen daal décider jël seen destin amé nil daal di mëna li nga xam ne que moo di dëgg tànk si mel jall ci benuk anam benuk anam bi nak moy daal di gaaw amal li nga xam que mooy benn audience fa nga itam moy daanu tribunal bu Ndakaaru euh, ginnaaw ba ko Cour suprême dadi joxé li nga xam que tribunal euh daal di aussi casser li nga xamné que mooy décision bu li nga xamné que modi di juge Sabassy donc li nga xamné que modi tribunal bi mom mo fas yéene di addu jëmale ci ki nga xamné que modi di euh, ak ëllëgu ki nga xamné que modi Ousmane Sonko donc mi ngi non donc mbokk spectateurs yi euh, ki nga xamné que modi Ousmane Sonko mujj na daal di li nga xamné que euh, modi di bobu li nga xamné que modi rabat d'arrêt bi nga xamni tam ñëpp ñu ko doon xaas si moom la ko waraloon ni li nga xam que moo di juge yi matuñu euh, ñu àtte woon li nga xam que euh, moo di suwaanu ko cour suprême ay avocat am nag nee nañ déet rabat d'arrêt du fi am benn yoon parce que dañoo bëgg daal di li nga xam nekk moo di euh, conserver temps bi jëmale si li nga xam nekk moo di élection présidentielle atoupa 2024 ñu daal di jàpp ni entre temps procès xajaatu fi ay rabat d'arrêt di fi daal di xew ba présidentielle daal di war a mën a romb ki nga xam que moo di Ousmane Sonko donc éclaircissement de taille yooyu lañ leen loon indi par rapport ak ki nga xam que moo di Ousmane Sonko qui a euh, finalement renoncé bobo dina nga xam euh, modi euh, rabat d'arrêt den si dal di ñëw si nu ak aussi li nga xam modi moo di xalaatu juriste yi ni kon mi ngi nek si moment bi nga xamni itam bëgg na di li nga modi peut-être déjouer bép plan bi nga xamni tam itam nguur gi lal nako ñom japp né ni piège la jëmele ci ñom suñu ndam amalé li nga xam nekk mandat dara yegg wacc bi di jeex rek li nga or place de Dakar di ko daal di atte dina fekk élection yi nag daal di weesu ay avocat Ousmane Sonko li ñu daal di sàkk na xam nekk mooy benn ko ndaje xam ne itam mooy zone euh, boobu dina xam nekk mu di euh, dossier sax daw ay responsabilité am en tout cas a ñoom jàpp ne ni itam euh, ki nga li nga xam nekk mu di ay responsabilité am maître Bamba Cissé mu daal di faree si pour d'avocat bu Ousmane ñëw Dakar pour daal di atte ki nga xam nekk mu di Ousmane Sonko vu que ni fan xam ni itam mooy zaanu que Ziguinchor lay daal di voté donc ana lan moo tax ñu bëgg a indi fii si Ndakaaru mu daal di jàpp ni loolu lépp dafa daal di lalu si euh, campagne de liquidation euh, jëmale seen ko client di ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko donc jàpp ni itam boobu de li nga xam nekk moo di euh, rabat d'arrêt Ousmane Sonko ak ki ay ñoñam mu nañ ko daal di teg si suuf donte sax yoon ak wàllug yoonal may na leen ko su ko ko sañ na xam ni itam seen xel mat na jëm saalu ko droit waaye ñoom itam bëgguñu benn yoon jouer montre bi ak li nga xam nekk moo di état bi en attendant l'eau loolu di jeex en attendant ñu amalaat benn procès fa nga xam ni itam mooy euh, tribunal bu donc loolu lépp na jël nekk en compte ni daal di war a mën a euh, si boobu de li nga xam que moo piège ni gi sërëx bi nga xam ne itam jàpp ne ni état bu Sénégal euh, lalal na leen ko mbokk spectateurs yi parrainage yi commencé na jëmale si ki nga xam que moo di Bassirou Diomaye Faye engouement li si daal di nemmeeku un peu partout à travers li nga xam que moo le pays waaye comme un peu partout à travers li nga xam que moo peut-être région yi Touba nag mu daal di li nga xam que moo am lu daal di toll si nga xam ne que mu di euh, euh, record si wàllu parrainage yi la mu am foofu bëri na lool ba daal si yegg euh, Pastef nag defagul li nga xam ne que mooy décompte bi du ñàkk moo di réaction bu ki nga xam ne moo di sax topp si point bi nga xam ni itam def na ko waaye itam leeral yi nga xam ne indi na ko si allant dans ce sens alors dañuy daal di jël ki nga xam ne moo di Khadiba Diagne mu daal nekk benn patriote waaye itam mu daal di gérer li nga xam ne moo di parrainage mu daal c'est important di faire def le point par rapport ak li nga alors euh, peut-être zone bu nek fa essayer jël li responsable bi di ki nga euh, sans plus tarder

jël ki nga xam nekk moo di Khady Badiane euh, Khady euh, Khady Badiane mu daañu defal li nga xam nekk moo di euh, point bi par rapport ak li nga xam nekk moo di parrainage ñoom itam fan la si daal di toll parce que aussi pas mal ñi ngi bëgg a xam exactement parrainage bi waaye itam alerte yi nga xam ni itam patriote yi ñu koy daal di alerter allant dans sens par rapport ñu bañ a dugal publier li nga xam nekk moo di liste yi alors dañuy daal di jël ki nga xam nekk moo di Khady Khady ñu lay nuyu bu baax a baax di la ziar bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs yi yaa ngi en direct Sénégal 5 TV. Fallou maa ngi lay nuyu. Hmm. di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk di suivre Sénégal TV. 5 TV autant pour moi. ok man la Khadiba Diane. Hmm. nekk euh, membre FAP. Hmm. nekkoon aussi ancienne coordonnatrice ABCAD.

Euh, montre bi ak état Sénégal alors euh, amuñu temps peut-être pour yegg aller, parce que son war na nekk seenu candidat fii 2024 exactement ban jangat nga si par rapport ak euh, dossier yi nga xamni tam itam tegle nañ ko Ousmane Sonko. waaw fallo. il faudrait d'abord comprendre que le dossier c'est des dossiers pour purement politiques. des dossiers ce sont des dossiers vides. Hmm en plus euh, des accusations fallacieuses yi nga xamante ñoo nekk ci ber dossier yi. en plus de ça dañu demoon ci fa nga xamante ne moo di cour suprême. Hmm. ngir mu àtte euh, diggante euh, agent judiciaire de l'État ak ki nga xamante moo di.

dadi di moom mu jël la décision d'investir ki nga xamantene le président Bassirou Diomaye pour les élections présidentielles du février 2024 je me mm. dis que tactique politique mm. parce que procès amagul date mm. kan moo ñu wax ne état du Sénégal fas yéenewul euh, programme li nga xamante ne moo procès wu Ousmane après les élections présidentielles kenn xamul donc à tout moment mun neen xaar procès

Si c'est une big parti moi dit euh, le président Bassirou Diomaye donc fofu man gisuma fa du avoir d'échec du hmm. réussite état du Sénégal mais tay image bi nga xamantene mom la Pastef donne jaay man man moom lay hmm. reflété ba ban genre image ban genre image concrètement pour dire que Pastef n'est pas seulement Ousmane Sonko ok que avec ou sans Ousmane Pastef fay dund parce que Pastef projet lay jaay hmm alors euh, donc euh, tay Ousmane Sonko japp na ni ben acte de grandeur le daal di def euh, japp ni instant bii nii li nga xam nekk moo son avenir est incertain mu daal di bàyyi ak léeg-léeg gi nga xam nekk moo Bassirou Diomaye Faye. effectivement parce que moi mooy relève bi nga xamantene mo wara am mooy tay bo nekkee ci mbir. ba daanaka nga am loo nga yëg nga tàllal loxo sa morom ngir mu jekkal li nga xamante ne mooy di liggéey bi ngeen tàmbali. te boo xoolee Bassirou n'est pas n'importe qui ci biir parti Pastef. Mm, mm. Bassirou bokk ñoo nga xamante ne ñoo sos parti Pastef. Mm. alors donc kenn ëppul ci Pastef ki nga xamante ne moo di Bassirou. Mm-hmm. alors euh, le choix de Bassirou euh, peut-être euh, choix bi euh, ànd nga si. Euh, je dirais pas que ànd naa si wala ànd parce que Fallou man je suis pas membre de PASTEF. Hmm. je suis pas membre de PASTEF. alors donc euh, si biir euh, Pastef sànq wax na ko que ni. des analyses politiques. mais si mais mais comme mes jàpp na je veux dire que ni le choix était probable jëmale me ki qui n'a ne que modi di Bassirou Diomaye Faye parce que jàpp na ni sànq na aussi si ñi teg li nga xam que modi di sur place waaw moom laa lay wax sànq. Mm. ci mieux que Bassirou. Mm. c'est un choix c'est un choix. leur choix et, et je pense que Bassirou profil bu baax la pour pour, euh, pour pour pour les élections présidentielles. ok alors euh, ñu daal di ñëw euh, directement si li nga xam ne moo di euh, parrainage bi loolu war a sax ñu gën laa dugal justement alors aujourd'hui euh, parrainage bi anguma bi nga xam ni itam nemmeeku nañ ko si xar yi euh, euh, ban analyse nga siy def concrètement waaw analyse biñ ci def hmm. mooy xam jamono ji réew mi mi ngi mel ni parrainage yi barki démb le le la tàmbali hmm. parce que depuis depuis depuis le lundi ah parrainage la ñuy waxtaanee ba mercredi bii ñu nekk. mooy wane tey la force politique bi nga xamante ne moo di euh, moom la parti Pastef daal di amee. Hmm. ba tax na tey actualité bu ñu bëgg a forcer laay wax. Hmm. <laughs> forcer entre guillemets moom moom la ñuy wéyalee euh, chaque jour. seetlu naa depuis que seen parti daal di annoncé que am nañu candidat que nañ daw dem pare na ko gis nga hmm. le nombre de parrain yi nga xamante ne moom la ñu nekk di récolter sur le terrain que ça soit